Mm-hmm. waaye nag yàllaay dogal. dëgg la. ñu ñi ko gom musulman chrétien hindou. Mm-hmm. bu ñëwee rek ñu nangu ne yàlla euh, comme amul ku fi dil jaar bés. ñu mm-hmm. nangu ko rek te muñ ko ñaanal ko ndax yàlla. xaare ko ca këram gu sell ga. amiin amiin yaa abe abe mën nga ñu wax tuuti ci kilifa gi moom Pape Malick si. waaw Pape Malick euh, au moins. depuis six fois que j'allais à Tuaon avec mon fils Oussandou de Joal. chaque fois bu ñu demee comme moo gënoon am jeunesse ci famille bi. moo ñu doon dalal. et tant que maa nga ñu dem ci dëkk bu si la boobu rek mu ngi yàgg ñun. yaakaar naa ma juumul ci doomam yi man maa ko dugaloon fii école Jeanne d'Arc. mu ne waaw labe su ma doom bii sori ñoo koy jàngal ma ne ko ah comme man nga woon nag loolu la ñuy def. Mhm. ce qui fait que dëj bi sama dëj la. dëj la ensuite ki jëla nekk Elimane Palmari Ababacar Ndour. Mhm. moo takkoon euh, ami tening fekk ma bokkal ndey ak baay. Mhm. ba tax boo laalee alxuraan di wax lu ñaaw dinaa daanu suuf di. ah waaw di. <laughs> dëgg la ndeysaan. Soudey ma sœur est née à épouser le eh, premier imam de tout Palmarin ma di ko tiitaroo. ah non. dëgg la moo tax kenn duñu xaaj de. parce que Allahu ahad. fu ñu jaar rek daji si moom. dëgg la dëgg la. te oustaz woo saa ma ne ba papa bu ñu toogee bi gannaaw ëllëg il faut que ñu dem parce que mënuma leen jaale nii rek ah damay dem ba ñu xam ne ci ñoom laa bokk. te daan naa dem. dëgg la dëgg la comme yàlla ñëw na jël ko daal. Mhm. gannaaw ëllëg incha allah dina ànd ak suma ustaas Ndour. suma mm. doom. ak Eddi Camara suma beneen jarbaat. Mm. ñu dem def li ñu war a di fowle. incha allah jërëjëf Abe ñu ngi la koy jaale yow tamit ni nga waxee wëllëri la woon la ci yow. merci beaucoup di la gërëm ci taxawaay gi ci wàllu euh, diine ji ndax euh, gis nañu. loolu war euh, li ñu naan dialogue islamo-chrétien Sénégal wees na foofu sax. waaw waaw weesu na ko waaw weesu na ko jërëjëf Seck. dañ koy dunda du teew dañ koy dunda. Mm-hmm. dëgg la wallaay dëgg la jërëjëf. parce que bu oustaz demee ma laal xel bu ñuul ba grâce à man di. Hmm. <laughs> est-ce que macha ma ko oustaz comme dem boo nga boo demee nga laal ma xel bu ñuul bi. maa la ko dëgg la papa naa la ko laalal. ñu lañ bëgg Sénégal. jërëjëf jërëjëf Seck. merci yàlla yàlla yàggal taxawaay gi. amiin amiin ñu koy gërëm saa su ne Abbé Jacques Seck moom boo ko tuddee rek waaw dafay mandargaal ni euh, ñuy wax naan euh, dialogue islamo-chrétien ca ni mu ko